waaw maa ngi lay fay. la. waaw Petit Lô moo gën a doomi Grand Yoff. ñëpp xam nañ doomi Grand Yoff ndax daan euh, nañ doomi Grand Yoff lañ. te Zarko boo amee bés. waa Grand Yoff fi mu war a taxaw ci. ñun nag yàlla dafa def ñu féete ci musique bi. maam góor gi Ndiaye alaaji bu ko tin Youssou Dieng mag ñi nga xamante ne dañ daan bàkku piir bàkku yi di neex bu ñu bëree dimanche bii bu dimanche dellu see ñu daje ci lamb ji tous bàkku waxante ay wax mu neex te loolu amatul ci lamb te dafa doon la war a xamante ne war a dellu si ndax lamb sport national la waaye culture la sunu aada ak sunu cosaan kon bàkku bi war ta loolu moo tax nag ñu tey fàttali démb tuuti rek gis leen yéen ñëpp famille ngeen ñii dañuy tëgg ñii di way mais li ngay def naka la la dikkee li ngay def waaw man nag damaa doon koo xamante ne dañoo doon dañoo juddu ci yëf yi juddu ci doyul ndax doomu géwél laa kese doyul nit da jàngi ma génn Dakar dem Thiès dem Kaolack dem Louga gëstu lu bari ci mag ñi fecc Oscar des vacances yor orchestre di tëgg ci mariage yi di tëgg ci gënde di tëgg soirée yi Aziz Samb dafa di ko organisé concours bàkku Oscar de vacances di ko sargalee njugatin ma demoon ci concours bi yàlla def ma jël trophée bi bàkku bi nag doon lu ma neex torop parce que mag ñi daawuñu taasu waaye bàkku yi ñu def da ngay xam ne lii dafa am ngéwél dafa ngéwél dafa neex te ñu daal dafa def ñëw ci man naturel waaye famille bi sabar yaa ngi fi yaa ngi fi waaye man yàlla ma def ma bëgg ay nekk ci. ñu gis tey nga ñëw ci bésu Zarko nan ngeen yebee Zarko a def bëre ak ki nga xamante ni mooy Baye Mandione. ndeysaan Zarko li mu wax leen la xam na fi mu jógee xam na fi ma jëm Zarko ku ko xam xam ne na ko dañ koy ñaanal yàlla rek te di woo waa Grand Yoff yëpp nañ ko jàppale ndax Zarko dafa bëgg Grand Yoff ci xolam buy wax ci Grand Yoff xol lay waxee kon ñun ñëpp nañu ànd dooleel ko puus ko mu daan bàyyi ma ñoon ndax bàyyi li fi ne newul caaro yi ñun lu ñu yor tëggkat yi nekk caaro yi yoruñu ko aar bi nekk ci ñun ak culture bi ay tëggkatam yoruñu ko kon nag bu ñu ñëwee esat dinañ xam ne beneen message Albouri dafa toog 2STV ñaan CNG bi dafa bëgg man ma ñëw ci làmb ji jour si tamit man maay tuusal Albouri ndax nag dafa bëgg a delloo si cosaan kon la 15 bi bu bëgg a gis 100 pour cent cosaan seetaanal tuusu Zarko ak tuusu Albouri dina yàgg dina mujj. kon waaw ba booba incha allah dara du ci yomb.